ndeysaan ñu ngi noonu commencé tournoi bi bi <laughs> mooy premier combat ci baa ngi noonu dox ci diggante Albarka Kayre ak Kaawu Gourdin bu Dalifort ndeysaan combat baa ngi noonu Kaawu Gourdin Albarka dañ leen xool combat bi ñoom ñaari xale yi dañoo yàgg a ñemente yàgg a xiifante tey fu ñuy mujj arbitre bi laaj na ay siisam laaj na Kaw Gourdin laaj na albarka arbitre bi sifflé na yi ko premier combat baa ngi noonu ci wàllu tournoi bi ba la ñu bokk albarka Kayré Kaw Gourdin Kaaw Gourdin moo la woon ginnaaw ngéb boo ngéb lu xonq li albarka nga jàkkaar lool moo ngéb boo ngéb lu weex li ñoom ñaar ñëpp ay garde normal lañ ku ci nekk sa tànk càmmoñ moom nga jiital dox ci diggante albarka ak Kaaw Gourdin ñu ngi lewaatoo ndànk albarka ngi dox Kaaw sikina na dinañ xeex ñoom ñaar ñoom ñaar faw ñu xeex doo ko jàppante Gaaw Gourdin Albarka ñu ngi leewaatoo ba tey leewtoo bu diib def ñoom ñaari xale yi ku ci nekk mu ngi xool sa morom ci bët kan mooy njëkk dem Albarka dóor na kaw jëli na ko jàppante na ñoom ñaar ña xeex dóor mu daanu wala déet xeex na ko Kaaw jël na ko daan na daan na Albarka daaw gurdee daan na ko dàq na ko loo waxoon def na ko